ala suuratihi ca meloom mu njëkk wa meloom mu njëkk wa mooy wan noonu li ko xasaali yu firee nekkoon na juróom benn fukki xasabu ba mu ko bindee ba pare ne ko mu ne ko labayka mu ne ko demal nga nuyu malaaka yële taxaw fekk malaaka yi ñu ngi toog mu ne leen mu ñu mu ne ko nuyu leen leen nuyoo nga déglu niñ lay fayee su boobaa nag niñ la nuyoo niñ leen nuyoo ak niñ leen faye moo nekk sa nuyoowu xeet mooy nekk tamit sa fayu xeet aadama ñëw fekk malaaka yaa nga toog mu ne assalaamu aleykum malaaka ya ne ko assalaamu aleyka wa rahmatullaahi ñoom dool nañ ko wa rahmatullaahi ndax yàlla dafa bëgg ñu la nuyooyee nga fay nu gën a rafet niñ la nuyooyee yàlla ne ko nag ramaseel ñaar yëpp nga yóbbu ko ci suuf yaag sa xeet week lii mooy nekk seen nuyoo xadis bi abi hurayra moo ko génnee ci yonantu bi buxaari yu andi ko ak muslim mu bokk ci xadisu muhammad ibnu rafi ya nii la xadis bi tëddee xalaqallaahu aadama ala suratihi tuuluhu sittuna siraan fa lamma xalaqahu qaala dhab fa sallim ala ulaayika nafar min almalaaikati juluusun fastamic maa maanaam maa yuxayuuka fa innaha taxiyatuka wa taxiyatu zuriyatika léegi na fa qaala assalaamu aleykum fa qaalu assalaamu aleyka wa rahmatullahi fasaadu rahmatal maanaam fasaadu wa rahmatullahi axrajahu buxaari yu fi say boo demee da ko ci fekk nii la ko indee moo tax ko nuyoo aadama ci la ko yàlla njëkk a wàccee aadama di doomu aadama waaye mu jël nuyoo ba jox ko malaakay su ko defee nag malaaka yi fay ko yàlla ne ko ramasseel yëpp bu liggéey nga xam ne mooy sa nuyoo ko xeet wi waaye gis nga ba muy nuyoo asalaamualeykum la yemoon malaaka yi fayee ko wa rahmatullaahi yàlla dafa bëgg buñ la nuyoo xee buñ la nuyoo booy fay fayal ni gën a rafet nañ la nuyoo xee loolu saraayaa yëpp ñoo ko reconnaître boo jëmee ci Ibrahima ba ko malaaka yi ñëw jumlatul fi'liya lañ ko nuyoo. qaalu salaaman waaye Ibrahima bu mel ni fay salaamun la wax muy jumlatul ismiya boo jàngee balaaxa dañuy wax na jumlatul ismiya moo ëpp doole jumlatul fi'liya moo tax kon buñ la nuyootee fayal nu gën a rafet niñ la nuyoo nuyoohee lu boo ko mënut nga nuyoo ni la waaj a nuyoohee moo tax nuyoo dafa bokk ci sharaa'irallaahi ci mandargaay diine yàlla ji la bokk te yàlla nee na zaalika wa man yu'azzim sharaa'irallaahi fa innaha min taqwal quluub seeti ko ci suratul xajji aaya 32 boo demee da ko ci fekk noonu su ko defee kon nag nuyoo ngoog lu ama am solo la nañ koy bàyyi xel tey jël nuyoo ab lislaam nuyoo lislaam baat ay baat la muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nañuy bàyyi nag yeneen nuyoo yi nga xam ne nasaraan yi ñoo ñu ko indil lii yahood yi indil ñu ko ñoom seen nuyoo tabaarakallaahu ay baat la yoo xam ne la muy tekki kenn xamu ko rombal naan la bonjour mooy waxi lan kii rombal naan la naka suba si la la ma ca gën a métti nag mooy romb kilifa nuyu ko nu ngeen fanaanee ni fanaane dafa la ko mën a wax yooyu yëpp nuyoo yu bon la yu lislaam xamut te yëpp ñu ko royee ci tubaab yi moo tax yonent bi nee na woon yéen sama xeet wi li leen yàqal mooy toppandoor ku ñu war a topp warul toppandoor da ngeen topp yoonu ñu leen jiitu woon sebre par sebre xasabu par xasabu ba ñu duggee ci paxam mbëtt sax ngi maanaam ngeen sóobum pax mooma la tattabi'unna sunana man qablukum shibran bi shibrin wa ziraan bi zirain xatta law salaku juxra dabbin la salaktumuuhu lii la yonent bi wax moo ñu tardeel da ngeen topp gaa yi leen jiitu woon seen yoon yu bon yooya sebre par sebre xasabu par xasabu ba buñ sooboo pëxam mbëtt sax ngeen fekk leen ci biir pax ma moo tax tey ñun bàyyi nañ fi nuyoo hëb lislaam dem di topp nuyoo hëb yi dem di topp nuyoowu nasaraan yi dem di topp nuyoowu ñu kenn xamut seen xeeti nuyoo yooya nga xam ne duhut jàngaleem yonent bi duhut jàngaleem alquran te li ñu yàlla indil amul lenn lu mel ni moom ci sakkan ci barke ci baax muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nga wax ko waa ji delloo la ko moo gën nga nekk fanaan bonjour ak bonsoir ak naka suba seeg naka ngoon geeg nu ngeen fanaanoo ak nga mag nanga mag ñenn ñi romb seen morom kuul ak yu kenn xamut baat yu bon yooya ñi dóorante ay conc ñi dóorante maanaam ay baaraam yu kenn xamut yooya yëpp duut lu lislaam xam te nag man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum kuy niru niru lu aw nit dangay ngay bokk mujj bokk ca ñoom kon nuyoo hëngoog su ko defee nag nuyoo dafa bari ay ngëneel yu mu làmboo danaa la ci wax lenn ba tax na yow jullit bi bul ko remplacer te da dara bokk na ca ngëneel ya mooy yiw ñaanal nit ki yiw jàmm ñaanal nit ki teraanga ñaanal nit ki xéewal moo tax yonent bi dafa daan wax na ñaar bul ko jox ñi nga xam rekk xem ca jox ko koo xam ak koo xamut kan mu ne joxe ñam foo ko manee del joxe ñam koo xam ak koo xamut am nuyoo koo xam ak koo xamut yépp sotti leen ko ndax nit ku baax dafa war a yéene jàmm kum xam ak kum xamut waaye boo ne sama jàmm ji ñu ma xam rek laa ko yéene ku ma xamul bokkul ci su boobaa baaxoo moo tax yonent bi daal wax ne tutimu taama wa taqra'u salaama ala man arafta wa man lam taarif xadis la buxaari yu muslim abu daawud nasaayi ibnu maaja ñu indi xadis boobu kon nuyoo d'abord mooy yéene sa moromam nit xiiw yéene ko teraanga yéene ko xéewal yéene ko jàmm yéene ko sutura yooyu yëpp nag ràcc ko ci koo xam ak koo xamul ñaareel bi nuyoo moo gën a gaaw ci bijji cofeel nit ki sax loo ko lum la bañ bañ boo ko nuyoo rek bu yàggee rek maanaam mu bëgg la da nga mujj waa ji ni mu am aajoo moom daal du ma romb mukk mukk mukk mukk lu du kii daal moom amul morom kon nuyoo dafay bijji ak cofeel ci diggante ñaari nit ñay nuyoo moo tax yonentu mos na ko wax ne laa tadxuluuna al jannata xataa tu'minu wala tu'minu xataa taxaabu awala adullukum ala cheyin ida faaltumuhu taxaababtum ñu ne ko axa kay mu ne afsu salaama baynakum abu daawuda muslim tirmisiw ibnu maaja yonent bi nee na du ngeen dugg aljaana mukk mukk mukk lu ngeen gëm yàlla waaw yéen nag du ngeen du ngeen mënu leen a gëm yàlla mukk lu ngeen bëggante waaw waaw ñu ne ko mu ne leen du ngeen ñëw ma takk nag loo xam ne bu ñu ko defee da ngeen bëggante ñu ne ko lan la mu ne di leen nuyoo kon kenn du dugg aljaana ko gëmut yàlla kenn mënu ki dara kenn mënta dem yàlla te bëggoo sa mbokkam jullit ni nga bëggee sa bopp mënuñoo bëggante lu dul dañuy nuyoo kon nag nañuy nuyoo xante nuyoo bi yóbbu nu ci bëggeel mbëggeel googa firndeel suñu ngëm suñu ngëm googa dugal ñu aljana kese waaye romb nit ki naan su ma ko nuyoo bakkan la may fay dootuma waaye bu fexemee sax neex bu fexemee kay xanaa naqari bu fexemee sax baax bu fexemee xam xanaa bu fexemee bon yéen wu ji baxi leen loola nuyoo ante bakkan mënuma koo ñàkk nuyoo léeg-léeg nga bokk nit ki sàppe booy sëlmal sax dangay bëgg a yéexamtalu balaa seen ñaari xar-xaram koy maanaam jàkkaarle léeg-léeg ngeen bokki parti léeg-léeg ngeen bokki nangam ngeen bokk dëkk léeg-léeg ngeen bokk kër gi waaye doo bëgg sax foo dajeeg moom wala léeg-léeg bu ngeen bokk nga ne balaa bala ngaa dem ci benn xew nga ne ndax doo fa dajeeg diw su ma fa nar a moom rek du ma demati loolu lépp mbon rek la mbon dong la yàlla bëggut ay jullit ñuy tongoxante loolu baaxut moo tax yonent bi daana wax ne dabba ilaykum daaul umami qablakum alxasadu walbaxdaau hiya alxaaliqatu laa aqulu taxliqu shaara walakin taxliqu diina walladi nafsi biyadihi laa tadxulu ljannata xata tuminu wala tuminu xata taxaabu afala umbiukum bima yuthabitu zaakum ah ñu laaj ko mu ne làkku maanaam làkkum ñu ne ko noonu mu ne af salaama baynakum bi bi bisaar mu indi hadis bi ci isnaad boo xam ne bu rafet rafet la yonent bi nee na jàngoro ji nga xam ne dafa nekkoon ca xeet ya leen jiitu woon yukkat na naam moo ay tànkam jëm ci yéen sama xeet wi ñu ne ko yooyu jàngoro ñaar ban la mun a ñaar rek la mooy xañaan ak mbañal xañaane nit ki ak nëbbal mbañal sama moromam nit loolu nag mu ne waxuma la dafay wat waxuma wat kawar mais dafay wat diine saa yu la yàlla na tooyee xañaan mbaa mu na toola nga xam mbañeel ci sa moromam jullit sa jëm sa sa li nga amoon ci lu baax ma ngay watu di di di ruus comme kawar bu ñu wat yonent bi ne damay gëñ kii nga xam ne sama bakkan moom moo ko yore muy yàlla li may gëñ nag lu leer la mooy du ngeen dugg aljaana mu ko ngeen gëm yàlla ku gëmu yàlla doo dugg aljaana mu ngi leen a gëm yàlla mukk mukk mukk lu leen bëggante du ngeen ñëw ma solo leen lu leen di may loola ñu ne ko lu ñuy may bëggante mu ne mooy ngeen di nuyoo kon gis nga nuyoo ni ma xamee importance li mu yonent bi wax nii rek war na tax koo rombati xam nga ko xamoo ko ne ko asalaamualeykum bu la fayee bakkan affaire la bu la fayu tamit bul tax nga bàyyi ko dee ko nuyu rek bu yàggee dana la fay su ko defee kon nag noonu nuyoo di bijjee ak cofeel ni la nuyoo tamit di fulee ay xiw ku bëgg a am ay xiw yuy fulalu ko rek nga def benn ñu fay la fukk nga def fukk ñu fay la ay téeméer del nuyoo kooku imran ibnu xuseyni moo wax ne benn góor dafa ñëw ci yonantu bi ne ko asalaamu aleykum daa di yonantu bi delloo ko mu toog yonantu bi ne fukk de fukk am beneen waaye ñëwaat ne ko asalaamu aleykum wa rahmatullahi yonantu bi delloo ko mu toog bi ne kii xam na vingt ñaar fukk keneen ñëw ne ko asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yonent bi delloo ko bu pare mu toog yonent bi ne kooku am na tànt kon ndeke nuyoo bi loo gën a yokkee rek tabaarakallahu sa yiw gën a yokku ki ne asalaamualeykum wa rahmatullahi moo ëpp doole ki ne asalaamualeykum rek mais ki ne asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu moo ëpp ki ne asalaamualeykum wa rahmatullahi rek a xam ca kon baat boo ca dolli rek sa yiw lu koy gën di ful muy dollee ko te fi ñu jëm yiw du fa doy luñ la wax ne mën naa joxe yiw rek bul ko xeeb sottil mu gën a bëri fa ñu fañ jëm ku fa teeri réccu billaahi da nga yëg ne boo fa teeree da nga xam ne àdduna bile nelawi ku doon gémmantu rek la wala àdduna bile nelawi kuy gént la wallaahi wala mu nekk yoon woo xam ne ngaa ñëw jéggi ko rekk jàll ku ko xam dana bari loo xam ne kenn mënu la cee dugal ko xam dana bëri loo xam ne doo ca dugg mokk ku ko xam billaahi da nga xam ne euh, bis boo ne sërëx ci kàmb ak bàmmeel billaahi da nga réccu la doon nekkee ci àdduna bi maa la ko wax sa Sëriñ tuuba Xaadimu Rasuul mu ne gaayee ca bàmmeelee boo leen fëggoon lañ gën a bëgg mooy dellusiwaat ci àdduna bi doonte assistant ala lu mu tuuti tuuti ci ay minutes ñu man koy yokk ci yiw tëmt daat yow nag yàlla indi la fi jëlagut la te xamoo kañ la boo xendu ji da nga fanaani boo fanaaniwut da nga xendu ji te far force mu nekk ci juróom-ñaari bis yi benn am na ci boo xam ne doo ko jeexal li ko doree altine ba dimanche sa bis ngi si kenn mënu koo génn fukki weer yeeg ñaar sa weer a ngi ci li ko doree janvier ba décembre mënu koo génn xaw ma nag année ba ban la nga nekk ca li nga xam ne néew di ko caaxaanee di ci dugg ci yoo xamee ne ni mën na laa dugal safara bu la ko kenn jaral ci kaw suuf bu la ko kenn jaral koo mën a doon boo dugg ak moom bàmmeel si yaay wéet ak sa biir bàmmeel ba ca fa nga nekk te su boobaa la nga fay nekkee da nga wéet moom kon nag waxal loo xam jëf xam. bàyyi méddam àdduna bii di poñat mi boo ko defee rek yàlla mën na laa dimbale ci lu bëree bare bëree bëri kon nañuy nuyoo xante point boo ca dolleeku rek boo ca dolli rek sa point gën a dolleeku tamit ci aw xiiw beneen bi ci tegul nuyoo dafay waral ñu hubbil la bunti aljaana ya bu la ca neex nga dugg dañoo jëlee ci abi yuusuf muy abdullah ibnu salaam mu ne maa dégg yonantu bi ne yaa ayuha nnaasu afsu salaama wa at'imu taama wa sillu wa sallu wannaasu niyaam tadxulu jannata bi salaam moom sax nee na hadis bi la jëkk a dégg ci yonantu ba mu ñëw Madinatul Munawwara yonantu bi ne yaay dee leen dee leen di leen siiwal nuyoo dee leen joxe ñam dee leen joxe ñam nit ñiy lekk te ngeen bañ di leen ñaax ndax boo koy joxe joxe ko ci comportement wu rafet ta ña ko jox nga yéene leen ko gunge ko kàddu yu baax togg ko ba mu baax nga teg ko te wane gannaaw. mbaa nga ñëw toog lekkandoor ak ñoom waaye léeg-léeg ni ngay tegee ñam wa di ñaan nit ñi waaye ñëw leen wan na boo ko defee ñëw wan la sa gannaaw seen seen seen sa ñam bi wala nga ñëw leen wan boo ko waxee nit ñi wan la gannaaw wala nga jox ko ba pare taxaw di ko ñaan nan ko booy ñàkk jom nangam ak nangam keroog ba nga xiifee nangam loolu baaxut yaa ayyuhal lazina aamanu laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal azaa kallazii yunfiqu maalahu ri'aa naas ah Seex Ahmad Tijaan nee na bu ñu demee ba mujj ak jamono jëf ju yàlla nangu dafay jafe. mën ngaa fanaanoo julli te du tax yàlla nangu ko nga xeendoo koor du tax yàlla nangu ko nga jàng alquran yu dul jeex di yàlla du tax yàlla nangu ko ndax moteur yi muy xol ya ñoo paan su boobaa kon nag mu ne li gën a gaaw ci liy gën a tax yàlla nangu jëf ya mooy togg ñam wu baax di ko jox nit ñu baax ñi togg ay ganaar togg ay ñam yóbbu ko ca daaray alquran ya yóbbu ko ci ñu baax ña ñu lekk ko Seex na tujaan yi nee na buñ delloo ci mu jóg jamono foofa mooy jaamu yàlla goo xam ne gën xëpp ko doole ci xeeti jaamu yàlla yi defar ñam gu baax jox ko gaa yu baax waxuma jox ko ay fenkat waxuma jox ko ñi nga xam ne daggkati bokk lañ waxuma jox ko ñoo xam ne dañuy ñaawal waaye jox ko jàngkati alquran ya ñu baax ña ñu yiw ña moo tax mu ne wa ataimu taama tax bi gën ne wa sallu wa naasum niyaam day leen julli guddi fekk nit ñaa ngi nelaw nit ñay nelaw rek ngay wax allahu akbar asalaamu aleykum kem sa kartan yonent bi nee na ñett yi ku ko dappetoo boo dee dem aljana mooy di nuyu nit ñi te li nga wax ci sa làmmeñ ci nuyoo na fekk sa xol bi fas ko toggal ñam di jox néew ju doole yi nit ñu baax nga di lekk sa ñam ñetteel bi del julli guddi mu ne ñett yi ku ko def boo dugg boo dee dugg aljana Abdullah ibn Salaam nee na ba mu yonent bi ñëwee war Munawwara xadis bi laa njëkk a mokkalee ci moom mu ne yaa ayyuhan naasu afsu salaam wa at'imu taam wa sallu wan naasu niyaam tadxulul jannata bi salaam tirmisi yi moo génnee xadis bi xadis la boo xam ne bu wér a wér a wér a wér la riwaayaat yi nag danay ko defee tamit nuyoo noon mu lay mayee wax la ko nii xadis bi taktale ko ta muy tadxulul jannata bi salaam noonu tamit la lay mayee yàlla def la ngay gi gën a xeexoo ci yërmande yàlla ak njëggalam ki gën a xeyoo ci yërmande yàlla ak njëggalam mooy kii romb nii ngi leen nuyu yonentu bee ko wax salaam salaam nee na inna awla naasi billaahi man badaahum bi salaami ki gën a yell ci nit ñi ci yàlla mu yërëm ko jéggal ko ay bàkkaaram tàbbal ko aljana mooy koo xam ne kum romb moo lay njëkk a nuyu kon loolu xam nga baax na bokk na ci liy waral njëggalal yàlla yulli nuyoo ak rafetal wax jëmee ko ci nit ñi inna min mujibaatil magfirati baslu salaami wa imaamu Tabaraani moo génne xadis bi mu nekk lu wér a wér kon wax ju rafet sarax la ñuy rafetal kàddu yi pénc moo dem ka fa gën a ñaaw kàddu mooy ka gën a bon ca pénc ma mbokk goo dem ka ca gën a bon làmmeñ mooy ka ca gën a bon borom làmmeñ wu bon wu ñaaw di xas nit ñi topp média yi di wax wax ju bon yonent bi nee na ko du dugg aljana nañuy rafetal wax yi wax si la yàlla rëbbee nit wa lu'inu bimaa qaalu moo ne ci alquran waaye waxul wa lu'inu bimaa fa'alu yàlla rëbbeef na leen ngir lañ wax léeg-léeg nga wax dara jëmee ko ci sa moromam nit foog na lu simple la fekk kàddu googa mën na laa tax a juróom-ñaar fukki ati lolli ci safara te yonent bee ko wax ñuy bàyyi dañuy yar kàddu yi nañuy seet na ñuy waxee waaye léegi léeg danga gis nit ñi nit ñi invité ko ci plateau tele mu sol colaay gu rafet waaye yem gu rafet googa kàddoom yu bon yamu addu ñaawal na lam soloon ba mu waxee ba pare doo bëgg lu dul xëcc ko rek rendi ko rey ko benn yoon ndax penc mi am jàmm fii dañoo bëri borom kàddu yu bon te ne ay kilifa lañ ñaaw kàddu ñaaw jëf ñaaw yéene ñaaw xol nit ñu bon wallaahi bu ñu yàlla ru séewutoon yonent bi li may wax da nga toog ba si yàgg rek gis ni ko taxaw rek di lakk jékki-jékki ni ñu ne fay leen xoo leen pompier ngi ñëw arrosé ko fekk dafa jékki-jékki rek di lakk doo xam sax lu ko taxal te lu ko taxal du dara lu dul bon lu ko taxal du dara lu dul xol bu bon ak soxor ak iñaan boo xamee ne ni te foo ko fekk borom ma nga téye kaami di lagar-lagar téye ponkalam kurus wala mu ne ma ngay julli wala mu ne ma ngay jàngal Quraan ak nangam ak nangam fekk loola lépp dafay soppeeku di ko rëbb ngir ak jikko ju bon ju nekk ci moom ak xol bu bon bu ñaaw booba noona kon nag nuyoo xëngoog ki nga xam ne sax mooy ki gën a nay ci nit ñi dugut ki ba nga joxe alal mais yonent bi ne ne ki gën a nay ci nit ñi mooy ko xam ne bu rombee moroomam nitam du ko nuyu ab ab xalu naasi man baxila bi salaam loolu mu jar a bàyyi xel la moo tax benn góor dafa ñëwal yonent bi ne ko diw dafa nekk sama ngédd li waaye di ma lor mu tiis lool mu ne ko waaw te nga koo yónnee ci sa cëggi tàndarma yi rek jox ko ko mu nekko waaye déedéet ah moom daal tabaarkàlla rek wax ci moom lu bon yonent bi ne ko maa raaytu alladi huwa abqalu minka ila alladi yabqalu bisalaami man daal gisuma ku la gën a nay xanaa ku gën a nay ci nuyoo rek yow sa toolu ma bii sax mënoo cee jox nit ki nga ne mënoo ko fa ëpp lii ko ko ta lii maanaam may may may ma ko qaala laa qaala fa jaay ma ko mu bañ mu ne jaayee ma ko kon cëgg ca aljana waa ji bañ mu du ma ko def mu ne ko yow daal kenn laa gis ku la gën a nay ci kaw suuf mooy koo xamee ne nii bu ndombee moromam nitam bu ko nuyu fekk hadis bi ne la tëddee anna rajulan atan nabiya fa qaala inna li fulaanin fi xaaiti adqan inna li fulaanin fi xaaiti adqan wa innahu qad aazani wa shaqa alaya makaanu adqihi ah, fa arsala ilayhi nabiyu fa qaala yaani ah, fa qaala yonent bi ne ko naan bi'ni adqaka alladi fi xaa'iti fulaanin jaay ma ko qaala laa qaala fa ëb lii qaala laa qaala fa bi'nihi maanaam bi adqin fil janna qaala laa qaala maa raaytu alladi huwa abqalu minka ila alladi yabqalu bisalaami nit ñi gën a nay mooy koo xam ne bu rombee moromam nitam sax du ko nuyu kon ndeke kookaay ki gën a nay ci nit ñi moom la yonent bi wax a waa nii kon nag nuyoo ngoog léegi nag dama lay wax ni ñuy nuyoo rek ndax alquran daf na ko ida xoyitum bi taxiyatin fa xayu bi asana minha aw rudduha su boobaa nag nañu nuyoo rek mooy boo rombee sa morom ñu ne ko asalaamu aleykum mooy li ci gën a tuuti li ci gën a digg doomu nga yokk ñu wa la ca gën a bëri nag mooy nga ne ko wa barakaatu foofu moom kenn du ko paase moom la alquran di wax wal malaayikatu yadduquna yadduquluuna alayhi min kulli baabin jàng nga ko rahmatullahi wa barakaatu alaykum ahlal bayti yëpp kon muy baati nuyoo yëpp boo jëlee da ko fekk ci alquran ni mën ko ciy génne benn par benn kon kii nuyoo da nga wax asalaamu aleykum waaye bul wax ne ko boo koy fay bul wax ne ko alayka salaamu fa inna alayka salaamu taxiyatul mawtaa yonentu nee na bu romb ki ko nuyu mbaa nga koy fay ne ko alayka salaam loolu mu ne mooy nuyoo way dee ñi loolu kenn du ko nuyu nit waaye bu wax tamit alayka salaam de boo ko waxee mooy ne ko damaa bëgg yàlla taw ci kaw sa say dot dot ci sa kaw comme ni ko daan yahuud yi waxee yonent bi loolu baaxut kon nuyoo yaa ngoog nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla sax bëggul ñuy négliger nuyoo ci gaa yi dee nekk ci biir bàmmeel yi boo koy duggee sa asalaamualeykum ahla diyaar min al muminin lañ bëgg nga nuyoo leen su ko defee nag door leen a jàngal dog yooyu nga xam ne feeñ na ci sunna ñi ni ko nii di ko di ko di ko jàngale kon nuyoo baa ngoog léegi nag dana dagan yaman ñoo ko indi ci diina ji nga def nit ñi mu saafaxa boo nuyoo koo xam ne góor la ngay góor nga jox ko loxo loolu moo doon aadaay yaman keroog bañ dugg ci yontu leen waa jaahlul yaman waa yaman ñëw nañ jóg leen ngeen jatandu leen yëkkati loxo jox leen ko bu ko defee tamit yonent bi daana daana joxe loxo eh, waaye nag mosta jox loxo jigéen daana wax ne man duma jox loxo jigéen man sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee kon nag deel nuyoo góor asalaamualeykum bu la neexee ngeen bokk joxante loxo mais corona bi tere nañu ko gis nga ko tamit tabaarakallaahu su ma ne bul jox loxo jigéen tamit nit ña passé nañ loola da gis koo xam ne takkul la takkoo ko te ñàkk fayda mën naa am nga jëkkër moo xam moo jëkkër nga jël sa leex bi teg ko ko mu jël sa loxo bi teg ko ko waaye corona bi tere na ko moo tax tere corona bi daal li mu fi indi euh, loola lool rek mooy li ci baax jëlee na fi góor ñi daan tamrambaalu di dox guddi baax na lool. war nañ cee taamoo bu corona bi jeexee ñi bàyyi ko jëlee na fi tamit góor ak jigéen ñi doon lëngante loolu tamit yàlla na bu koronaa bi jeexee yàlla na jeex ñii di tegante loxo ñii di tegante ay lex yooyu tamit yàlla yàlla dimbale ñu bu corona bi jeexee yàlla na jeex yonent bi ci njàngale mu ne yow muy dox boo rombee ki toog nuyu ko dafay foone sa waaxu wi dëmboo jàmm ba ne ko asalaamaaleykum mu ay waa ji waaxoo mi ne jàmm rek la booy daw romb koy dox nuyu ko naka noonu tamit boo rombee ki toog nuyu ko loolu lépp yow mi war boo rombee ki nga xam ne dafay dox nuyu ko wala nga romb ki toog ndax dana tax nga wane ko ne ko boo ko rombee nuyu mu daal otom bi la may tiitaroo mi ngi nii romb bi bañ maa nuyu waaye boo ko dana wan ne ah ndeke waa ji otom beeg yëpp gisut dara gis nga ni ma nuyoo wàccee weer bi ne dafa maa bëgg a yóbbu xale moo tax yonent bi ne yusallimu raakibu ala al maashi wal maashi ala al qaa'idi wal qalilu ala al kathir mbooloo mu bëri buñ romb bu leen bu leen mbooloo mu tuuti rombee dañ leen nuyu kon mbooloo mu tuuti mi moo war a nuyu mbooloo mu bëri mi kii dox na romb bu rombee kii toog na ko nuyu kii war bu rombee kii dox tamit na ko nuyu loolu lépp euh, civilisation bu ama am doole la yonent bi indi ñu ko ci pénc mi tabaarakallaahu di ñu ko jàngal ñi mën a xam ni ñuy mën a doxalee suñu pénc mi waaye nuyu sax bul bul bul bul xeeb xale xale sax boo ko rombee nuyu ko yonent bi bu rombaan xale yi dafa leen daan nuyu dem di leen siyaara ji leen bàyyi xel xale yi jëruñoo xeeb. xam nañ loo xam ne mag ñu bari xamuñu ko kon nag nañ ciy bàyyi xel yonent bi yonent bi daf ko doon jàngale kon nag dafa daan wax ne yonent bi daana jàngale ah, maanaam euh, euh, joxe nuyoo ci ñi nga xam ne xam nañ leen ak ñi nga xam ne xamuñ leen loolu lu baax a baax la wàccee sa mbagg ci yàlla yëkkati sa dara daraja nga wàccee ko Euh, ci kaw ñi nga xam ne yaa leen sut daraja loolu baax na benn saabi yu dafa ñëw ci yonent bi ayul islaami xayrun lislaam moom lu ci gën yonent bi ne ko tut'imu taam wa taqra'u salaam ala man arafta wa man lam taarif lislaam li ci gën yëpp mooy joxe ñam ak nuyu koo xam koo xamut waaye saa yuñ demee ba nga xam ne koo xam rek ngay nuyu koo xamut doo ko nuyu loolu màndarga la ci jegeeg bis penc àdduna bu tukki rek lay lay takkale te loolu xegg nañ ci kon nag nañuy nuyoo wante tey ràcc nuyoo ba muy gën di yaatu ci ñuñ xam di ko ràcc ci ñuñ xamut nu mu gën a yaatoo gën a baax nu mu gën a sakkanee gën a baax te nañuy bàyyi xel liñ ëmb ci xol yi ba di ko joxe waaye waaye bañ koy wax ci làmmiñ na fekk mu nekk ci xol yi waaye xéene nit ki ne ko asalaamaaleykum ci làmmiñ fekk sa xol bi mooy boo sañoon mu dee boo sañoon mu torox boo sañoon mu alko lu baaxut ci sariya nag am na ñaar fukk ñu lim ne kenn waru leen a nuyu koo romb muy julli bu ko nuyu kuy nelaw bu ko nuyu kuy faj aajo soxla boppam nekk ci wanagam bu ko nuyu ki wéet ak soxnaam bu ko nuyu jàngalekatu alquran bi téye daa mbaa xali mbaam di bindu mbaa muy jàngale bu ko nuyu kiy jàng alquran bu ko nuyu ci lañu xéegal ki téye kurusam bu ko nuyu kii nodd bu ko nuyu kii liqaam bu ko nuyu kii wër kaaba ga di labbay kaw bu ko nuyu demeet noonu la ko borom xam-xam yi limee ba mat ñaar fukki nit ñoo xam ne kenn waru leen nuyu waaye tamit ñooña nga xam ne kenn waru leen a nuyu ñoom tamit waruñoo fay kenn nuyoo moo tax booy jàngal Alxuraan ku la nuyu bu ko fay ndax kenn waru laa nuyu boo xamoon xam-xam du la nuyu yow muy wirdo bu la waa buñ la nuyoo bul fay loolu moo gën a yaatu boo demee ci toolamaaw tariqa bi ñaari xaaj. ne su fekkee dañ la ne asalaamu aleykum yow nga ne ko wa aleykum salaam ba tey li nga wax génn gudd wirdo wi ñenn ngeen ne déedéet bu ca waxante loola sax bu buñ la nuyoo bu ko fay ndax yow dañ laa warta nuyu da ngaa bokk ñaar fukk yañ warta nuyu kon nag ba nga xamee ne waruñ laa nuyoo rek waroo tamit fay nuyoo boo demee ci ulamaawu tariq bi ci diggante gaayatul amaan yi ci téere yooya ak dem ci maanaam fatxul euh, maanaam euh, euh, fatxul raxmaan wala nga dem ci tabaarakallaahu arisalatu saafiya yooyu yëpp boo demee dañ la dañ lay indil wuutee ci masala moomu nga xam ne mi ci kon nag ñaar fukki nit daal kenn waru leen a ñaar fukki nit tamit waruñoo fay nuyoo kon nag fay nuyoo nuyoo a ngoog tabaarakallaahu ak li ci xaju xam naa ci kartanal yàlla ak sañsañam ah, boo ma toppee suba ci waxtu yi ma ñëw nag sof ak yow ci nidaau taasia wa xamsun waaye loolu mooy nekk yaa ayyuha alladina amanu li yastasinukum alladina malakat aymaanukum walladina lam yablugu alxuluma minkum salaasa maratin min qabli salaati alfajri wa xiina tadcuuna siyaabakum min alzahirati wa min bacdi salaati alcichaayi foofu muy salaasu awratin jooju lakum danaa la ci wax mooy nekk suñ bopp darsu bi ëllëg loolu tamit ña ngi koy fekk ca suratu nuur aaya 58 bu subaa ci waxtu yi dinaa la wax sama bu nu suul beeg li ci haju waaye moo lii ñu génnee sorewuñu lépp yàlla ngi ci jàngale diisoo bala ngaa dugg ci kër jàmbur nga diisoo bala ngaa dugg ci néegu jàmbur waaye dafa am ñetti waxtu yoo xam ne kenn waru koo seeti nit mooy ñetti waxtu yi nga xam ne ni ki day soxla boppam mooy heure bi nga xam ne da waxtu fajar la xam nga ne jëlañ fajar waroo ko def yow mi am xel tamit téléphoné téléphoné guddi min wi xas passé ngay téléphone nit ñi rawatina ay 4 heures du matin ay 5 heures day foog ne li ngay wax du jàmm jëru ko kon heure boobu kenn waru cee fëgg nit kenn waru cee dugg ci néegu jàmbur beneen bi tamit mooy waxtu mm, tusubaar muy waxtu nga xam ne waa ji dafa liggéey ba wàcc di def sast kooku waroo dugg ci néegu jàmbur bi beneen bi nag mooy waxtu gexe nit ñi dem julli ji gexe ba ñëw war a fatu ci seen néeg yi ñetti waxtu yi la yàlla lay wax ne waroo cee jugg jékki-jékki dugg ci biir néegu jàmbur mbaa ngay dugg ci biir këru jàmbur bu doon léegi tamit am na ci waxtu yoo xam ne ci heure boobu kenn waru cee woote téléphone nit ki boo ma toppee suba ci kartanal yàlla danaa la ci wax liñ ci xam muy aayaat yooyu nga xam ne commencé woon naa la ko jàngal waaye bu subaa ci waxtu yi ci laa koy farañ-fànce ba mu gën a leer ci sa bopp bi yow mi may déglu in uridu ila al islaha mastataxtu wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu